asalaamaaleykum euh, cher internautes yéen ñi saxoo seetaan Hann TV tey ñu ñawaat ci seen benn seen beneen euh, numéro xam sa diine tey ñuy wax ci li nga xamante ni moo di euh, séentum koor ñu dalalaat ci rek ba tey suñu oustaz bi ñu dul naatambale xam-xamam di oustaz Mor nekk ci RFM ak TFM oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw jërëjëf waa Hann TV maa ngi leen di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di leen dalal ci seen kër bopp macha allah. oustaz tey nag ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moo di séentum koor ñu gis polémique bi muy indi kii naan damay déglu imaam diw kii naan damay déglu imaam diw ñu gis ni sax ba ci tarixee dañ ciy dugg ñu ne damay déglu sëriñ nangam wala sëriñ mbale tànka waxul du ma woor oustaz lan lañu wax ci séentu koor waaw xam nga yenn saa yàlla li mu bind boo demee ci suuratu yaasin yàlla dafa wax ni weer wi jant bi yépp ci ni ko yàlla bëgge noonu la ñuy doxe doxuñu ci ni ma ko bëgge man mbaa yow ni ko bëgge kon weeru sàmba amul weeru demba amul weeru ngañ amul weeru faatu amul lan moo am weer wi sunu borom moom jox ko ne ko del demee nii weer wi di deme noonu mu ne jant bi del demee nii ne géej gi del doxe nii ne ngelaw lii deel doxin yi kon yooyu dégluwuñu ma sàmba dégluwuñu ma demb kan la ñuy déglu ndigalam mooy sunu borom alors lan moo indi nag coow yi di am te coow yi ñaari weer rekk lay am tabaski korite maanaam weeru koor bi début bi fin bi ak weeru tabaski mais yeneen weer yépp duñ ci werante lu tax parce que euh, yitte bi ñu war a jox weer yitte bi ñu war a jox weer maanaam bu ñu korité ngay compter yow ngay compter ba nga xam ne am nañ vingt jours soo dajee nit nga ni ko waaw tey la ñaata fan ci weer bi ñuy wax weeru wolof du ko xam wala ñu demaat tuuti nga ñëw ne ko ban weer la ñu nekk ci weer yi xamu ko am na ñoo xamante ni bii boo leen waxee limal ma weer yi dañ naan la janvier février mars avril mais mais mënuñu la limal muharram safar rabiul awal rabiul saani juma mënuñu la ko limal noonu mënuñu la ko limal ci wolof tamxarit diggi gàmmu rakki gàmmu rakkaati gàmm mënuñu ko donc dadul seen yitte pour ñu xam ko te ñooñu ñoo am jot am téléphone am euh, Sinap am réseaux sociaux am Facebook am sàmba am Demba di ci dugg di di coow créer benn coow mais ñi nga xam ne ñoom ñoo xam kenn da leen dul laaj te or alquran daf ñu wax ne laaj leen ko xam fas alu ala dikri dem leen ngeen laaj ko xam yàlla bind na ñu nga xam ne lu jëm ci astre rek loolu lañu xam ñu leen di déglu ci àdduna bi yëpp bu dee ci côté daara ku mel ni maam Seydi Hadji Malick bind na ci loolu boo demee ca mbusoo bi fële dañuy jàngale lépp lu jëm ci affaire biddeew affaire weer affaire ngelaw lépp dañ koy xam donc ku ku ko réeree nekku fi mais comme nanguwuñu avancé ñun nangu nanguwuñu avancer parce que tey jii maa ngi nii di wax mbokk bi mi ngi may filmer su paree da koy teg ci réseau sociaux yi wala mu teg ko ci seen chaîne bi seen site bi ku ñëw dugg ci site bi ba àdduna bi yépp dañ koy gis kon nangu nañu modernité bi mais nanguwuñu seexale xam-xamu démb bi ak xam-xamu tey bi loolu sunu problème la kon daal su ma la déggee oustaz di euh, polémique bi mi ngi jógee ci entre calendrier musulman bi ak calendrier euh, tubaab bi daal. ah déedéet mi ngi jógee ci calendrier musulman bi ak musulman yi. Uh-huh, ak musulman yi. <laughs> dafa am musulman yu nga xam ne joxuñu yitte calendrier boobu te ci li ñu def ci diine xanaa xamuloo nga baal ma de règle bi jigéen di gis baax ci weer wi la dépendre. fees gi géej gi di fees ak di fer ci la dépendre tabaski ci weer wi la dépendre korité ci weer wi la dépendre idda idda ku ñu ne may nañ ko baatam mbaa ku jëkkëram faatu idda boobu ci loolu lañ koy calculer mais donc kon mooy suñu diine mais moom laa la wax ne ne musulman yi joxuñu ko importance boobu léegi oustaz su ma la déggee musulman bi ci kan la war a basé wu pour ni

xanaa kon problème bi problème bi problème musulman yi la pourquoi mënuñu revenir réunir autour du de l'essentiel? essentiel te mooy yàlla li mu wax ni weer wi day génn wala weer wi du génn xam nga yàlla moo ko wax yasalunaka anil ahillati xul hiya mawaqitu linnaas weer wi dafay génn pour déterminer nu lii léegi am na ay jumtukaay yoo xam ne mën nga ci xam ndax weer waa ngi fi kañ lay génn kañ lay tëri nañu boole li nu xam démb ak modernité bi dootu ñu am polimique mais tant man maa ngi cramponné nii gisug bët rek laay xool te yonent bi tudd calcul te yonent bi tudd yeneen jumtukaay yi xam nga maa ngi ni takk samay verre su ma ko dindee damay am vision problème vision de près mais dama koy suis pour mu corriger ma vision alors kay la bu ko def gëm ko ko jël utiliser mais pourquoi ko jël moy problème mu ñi dañoo modernité bi te ñi ngi modernité bi ñu am problème mu du samba, moy wax ne wor leen ñu wara wor yalla mo koy ñu wor mo koy la jullit bi bu toogee eh, ñi ñu ñi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci commission bi ni weer bi feeñ na rek moom ci saa si war na mën a fas yéene um koor xam nga ñu nekk ci commission bi bureau la ñuy toog téléphone teg seen wet aram caam mooy nekk ca mbedd ma def nii séentu gis weer bi jël téléphone am woo gaa yooyu ni leen man gis naa weer bi comprendre nga ñoom ñu annoncé ni aram caam gis na weer bi alors du ñoom ñooy génnee weer wi kon ñoom ay information lañuy jot donc bu fekkoon ñun ñëpp amoon nañu yitte di dund weer wi di ko xam kañ la ak kañ la ak kañ la sunu problème bii dafay jeex parce que buy jot ñun ñëpp ñooy yëgandoo weer waa ngi nii génn ñun ñëpp ñooy yëgandoo ni weer wi génnul ñu maase ci la preuve mooy polémique dafa am ci début weeru Chaban Chaban mooy baraxlu bi début bi dafa créer polémique parce que dafa am ñu japp ni euh, premier jour c'est un jour de samedi ñi japp ni c'est un jour de dimanche mu jur une polémique polémique bobu duñu bayyi motax mm-hmm. tay ji ñu ngi samedi um dimanche sax dañuy lundi tamit. alors lundi nak lundi mën nañu um lundi parce que dimanche bi avons bi manam ma ngi wax ci li bu dé dañu sét xam-xam bii nga xamante ne bii moo jëm ci jumtukaay yi xarala yi ak xam-xam bi nit ñi di jàng ci seen weer ñi jàng xam-xam bi jëm ci jumtukaay yi je prends exemple ku mel ni Maram Kayre ku mel ni docteur Abdoulaye Gaye ku mel ni Xaadim Rasoul ñooñu dem nañu ba jox ñu information que weer wi dina génn dimanche soir de telle heure à telle heure ñu jëf ko ci seen xam-xam mu dess ñun jullit ñi ñun nangu ko ci xam mom la lay wax ne la nangu ma tak mu ma sama vision mais wuñu ma utiliser yu pour mu ma ci sama kon problème musulman lañu am mais amuñu problème té li problème musulman bi moy problème kër la amna ko ki japp nañu yu ko ça il faut le dire maa ngi déglu Samba est-ce que woor na su wooree ma woor bu woorul ma woor ma ma woor loolu problème la loolu mooy mooy suñu problème ci ci société bi moo tax dañu war a dellu siwaat xam-xam yi nangu xam-xam bi nu yàlla jox xam nga bi nu yonent bi wax naan dem leen jàngee xam-xam ba Chine xam na ni wax yu du wàcc Chine la technologie moo am Chine nga dem fa jël xam-xamu technologie bi boole ko xam-xamu wax yu pour mën a defar sa dund moo tax problème bi problème mu musulman la yenn musulman yi ak problème mu association islamique dayra këru tariqa nangam sangam ku nekk di xëcc sa bopp naan man la kenn man la kenn mat na ñu séddale ñu or yonent bi ne woon nañu bu ngeen moytuwul seen diine ji dina séddali ko plus de soixante douze morso morso bu nekk dina wax ne moo ko yor mais bi ko yor mooy bi ma nekk bi mu nekk nag ku ne nee na bi mu nekk la yonent bi nekkoon kon kan la mbir mi leer te waar amul waa waar waar mooy yooyu arbitre di xool yooyu amul ëllëg yomal <laughs> kon nag euh, yéen euh, euh, yéen cher internaute ñoo ko déggandoo gis nañ li nga xamante ni ay leeral yu oustaz indi kon nag liñ ciy jàngee rek mooy que ni ñun musulman yi suñu problème mooy dañoo maîtriser wul suñu calendrier nañ ko jéema dem jàngi ji xam mois bii ni xam nañ ko ci tubaab naka lañ koy xamee ci olof ba séntu bu jotee yow mi nga jàpp naa ne boog yow mi nga xamante ni nekkoo ci sax commission bi yow war nga mën a xam ni tel jour weer bi kon war na génn nañu rafetaat nañu rafetalaat rek ñun ñëpp ñu xam ni yàlla la ñu am yonent bi la ñu am affaire koor du diine nekku ne sëriñ bi moom mooy wax tey da ngay woor wala kilifa bii toog ci koñ bi moom maanaan tey da ngay woor ñu jàngiwaat suñu weer xam ne kat tey jii war nañu um wala suba war nañu um ñu um ko nag ci lu sel woor ko ci lu sell oustaz ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf maa ngi leen di delloo jaajëfal merci ko di nuyu seen internet yëpp macha allah.